ñu daal di ko koy indilaatal waaye nag jamono ji suñu modifié boobale loi Macky Sall moo yor cëggul guyam du jarati muy jaar assemblée nationale di wax ne yokkal leen ma yéen kaay gi nee na assemblée nationale jamono ji ma ngi wàññi dooleem di yokkal Macky Sall dooleem journal bi di laas ñu xëy fekk fa député bi di ma Diop Decroix nee na loi boobee waruñu ko modifié ndax baaxul ci réew mi te bëri na loo xam ne mën na koo gàllankoor ci réewum Sénégal moom député nee na du ko voté te Macky Sall fii ak 2024 dafa bëgg bépp projet boo xam ne bëgg na ko ci réew mi ngir imposer ko askanu Sénégal ngir ngir mu mën ko doxal yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na en tout am ba des daal lu jëm ci wàllu modifier loi 69 Macky Sall accéléré na ñi nga xam ne ñooy waa assemblée nationale ba tey jii la ñu koy voté sa assemblée nationale te xam ngeen ne bu fay jaar muy jàll ma jàll ci yéen kaay gi di Source A ñu xëy fekk fa Mamadou Diarra Bèye mi nga xam ne mooy directeur bu SAMU national daat nay wax ci lu jëm ci woppi coronavirus ak ni nga xam ne moom lay yokkee ci mi moom docteur daat nay wax ne lu toll si ñetti téeméer ci ay cas yoo xam ne amee nañu ko mbir mi fi mu toll waar loola njàqarek tiis am na ci xëy fekk fa Mansour Faye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum transport ci ñi nga xam ne ñoo waxoon ne dañu yokk prix yi maanaam tarif yi loolee Mansour Faye génn na ab arrêté nee na képp koo xam ne yokk nga njëg yi rek maanaam tarif yi danañu ko jëflante ak yow yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na lu soxal wàllum couvre-feu bi ak armée xam ne moom la ñuy génnee ñuy def intervention loole lu mën a ñàkk la baaxul ci réew mi baaxul ci armée bi commissaire Boubacar saajo moo ko xamle nee na ñi nga xam na ñooy armée bi maanaam formé wuñu leen ngir nag ñuy jàkkaarloo ak ay xale yoo xam ne ci ay quartier rek la ñu nekk di talay pëna loolee taxut a jóg armée ndax police ak gendarmerie mën nañu ko lijjante waaye buñ ne mbilim lacc rek ñu génne armée loolee dafay tax armée bi nga xam ne amoon na ko li am ci yéen kaay gi di libération ak l'observateur nee na lu soxal wàllum état d'urgence bi piscine party la bett ay jigéen ñoo xamante ni ak i góor nekk fa di gundaandaat journal bi nee na ay fils à papa la ñooñee teg nañu leen loxo brigade gendarmerie bu wakaam moo def lu ni mel yéen kaay gi nee na ndaje moome nag amul lenn loo xam ne desoon na saa yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na week-end nga xam ne moom la ñu génn tàng na jër ak woppi coronavirus ndax lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay nit ñàkk nañu ci seen bakkan ñu am ci lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay cas yoo xam ne ne nemmeeku nañ ko ci week bi yéen a kaay gi di Dakar Times génn ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu Paris la France foofee nga xam ne fa la étudiante bii di jaari sow ne mes ne mentañ ba jamono ji kenn gisu ko journal bi nag nee na dafa njort ne am na ay lees waxul ak ay interrogation yoo xam ne war nañu ko def ci mbir mi ñi nga xam ne sax ñooy presse française bi ñoom yeex nañoo dugal lool seen loxo ci wàll wi yéen a kaay gii di wal fajri dikk na ci wiil yi nga xam ne Macky Sall wax na ne dañu koy supprimer ngir ay reform loole nag waa parti socialiste ñoom d'accorduñ ci benn yoon enquête yéen a kaay ñëw nañ ci détournement bi nga xam ne moom la ñu doon wax batte plus journal bi li mu gis mooy waa FBI yi jamono ji nag ñoo ngi enquête ci lu jëm ci directeur général ba di Samra journal bi nee na enquête bi ñoo ngi koy wéyal jamono ji ci Sénégal waaye nag li nga xam ne daal moom la enquêteur yi mooy ay financement yoo xam ne ñii dañu ko bëggoon a defal terroriste yi yéen i kaay gi di a ñu xëy fekkaat fa geneenu njombe am na ñeenti libaane yoo xam ne teg nañu leen loxo ak ay millions yu bare bare bare bare ñoom nag dañoo njort sax ne lu jëm ci wàllu blanchiment d'argent si la ñuy yëngoo yéen i kaay gi di libération nee na lu toll ci cent quarante millions la ñu jàpp ci ay libaane ak ay euro yu bare bare bare bare journal bi nee na immeuble Kébé ak rue Abdou Karim Bourse foofe la ñu leen tege loxo waaye nag journal bi nee na li nga xam ne moom la enquêteurs yi njort mooy ay financement yoo xamante tax a jóg yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa maître Doudou Ndoye moom nag daan nay wax ci constitution bu Sénégal nee na constitution bi may na Macky Sall mu sampan dëndam ngir laaj beneen mandat boo xam ne juróomi at lay doon amul benn loi boo xam ne moo koy tere Macky xam xamle na ko ci yéen a kaay gi de laas nee na la ko waral mooy sunu constitution bi nii nga xam ne moom la bindoo moom sax jàpp na ne réew mi amul ab constitution moom maître Doudou Ndoye mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi ministre bi ñu dénk wàllum justice ci réew mi défendre na Ousmane Sonko ci lu jëm ci xaalis bi nga xam ne waa Pastef ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir nag seen i activité maître Doudou Ndoye dafa wax ne ministre Antoine Diome dafa ëppal ci mbir mi moom maître Doudou Ndoye daan nay wax ne sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi sañ-sañ bi ñu am moom la sénégalais yi nekk bitim réew am si seenum réew yéen kaa gi di Stades daan nay wax ne fukk ak benn jour yi nga xam ne ñoo gën a cher ci àdduna bi mennum Sadio Mané rek mooy si ab africain saajo Mané ma ngi jar lu toll ci soixante-dix-huit milliards ak lu teg moo ne 2012 Sadio Mané deux milliards la doon jar yéen